salaamaaleykum mbokku internet Seneweb TV euh, seneweb point com euh, ginnaaw bu ñu leen nuyoo euh, tey nag ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moo di yusuf bat yi ñu fas yéene waxtaanee lu bari tey lu jëm ci wàllu performance yi nga xam ne def na ko ci saison bi ren mais également parcours am ses projets objectifs yu mu fixé woon est-ce que atteindre na ko yooyu yëpp dinañ ko fas yéene waxtaan ak tey ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi laataa ñuy door waxtaan bi Youssouf ñu ngi lay di rafetlu teewaay bi ak euh, interview bu ngeen bu ngeen bu ngeen ñëw pour def ji si man maa ngi nuyu waa ñëpp ak ñuy seetaan euh, Seneweb TV aussi. voilà ñu fas yéene euh, door waxtaan bi dooree ko ci li nga xam ne dañ lay laaj question bu njëkk mooy kii Youssouf Badji. waaw Youssouf Badji c'est jeune joueur sénégalais international sénégalais bu euh, joué Belgique Charleroi. et voilà je pense que c'est un peu ça mhm, voilà kon dañuy ñëw si avant ngay dem euh, Belgique mu mel ni que say parents Youssou d'accord ñu woon ci nga football wala demeewul noonu. bon c' est pas que d' accord ñu woon mhm. mais euh, dañ ma xamaloon ne ni que football day ànd ak jàng mhm. su ma bëggee football damay nangu jàng mhm. su ma nangul jàng du ñu ma béy ma football yi waaw ah, donc euh, c' était c' était à doon ak ñoom kër gi dem jàngi ñëw football ak yooyu waaw métti woon na trop métti woon na trop parce que xam nga boo nekkee xale rek dafa am yoo xam ne da nga koy ignorer da ngay jàpp ne daal yow li nga bëgg rek dañ la war a béy nga def ko heureusement que Euh, aujourd'hui suñuy parents dañu xam nañu lu lu lu lu lu xale soxla mm-hmm. donc euh, métti woon na trop da ngay bëgg a génn dem football ñu ne la boo soit boo mënul solo leçon doo génn soit boo récité wul doo génn mm-hmm. donc heureusement loolu tey jàppali na ma ba ma xam ni amal na ma njëriñ mm-hmm. et voilà c'était c'était un peu ça. voilà Youssouf nga ñëwaat tuuti euh, ci parcours bi balaa ngay dem Belgique fan ak fan nga jaar ginnaaw ba nga joué ci nawetaan yi sanc ba ñëwaatal ñu tuuti ci parcours bi. bon waaw man sama parcours bon euh, maay commencé école de foot euh, Dominique Adams di ko nuyu de passage mooy sama premier coach boo xam ne mun naa ne bokk na si ñu ma jàngal football. après boobu fenn laa joué nawetaan presque sama sama parcours yëpp euh, mooy Santhiaba ay si Santhiaba bu Ziguinchor li ma jógee foofu joué naa ñëw joué ak Bendoula phase nationale yi fii après Bendoula si la joué Santhiaba club. Mm-hmm. joué euh, deuxième partie saison Santhiaba club aussi après si la intégré Casa Sport Casa Sport équipe nationale équipe nationale club de ñaata ñaata nga fa def. Casa def naa fa deux à trois ans mais lu si lu si ëpp équipe nationale laa doon nekk. moo tax hmm. euh, du ma doon constant si si si ak Casa Sport quoi. Hmm, donc euh, la plupart équipe nationale laa doon nekk week-end yi laa doon dem di jouer ay match. Hmm. boobu ban catégorie nga nekkoon ci équipe nationale. u U20 en même temps presque euh, toutes les catégories U20 après U20 doon am compétition U23 euh, dama doon mm-hmm. dem U23 aussi bu amee euh, local dama doon jouer ak ak mm-hmm. am nga fa ay trophées ay distinctions individuelles wala. waaw tournois yi jël ay tournois yoo xam ne jël naa fa meilleur buteur. Mm-hmm. et muy u gagné nañu aussi euh, coupe bu anglais organisé woon fii Thiès ak euh, équipe locale bi. Mhm. et tout mm, ci u yooyu sax euh, ngeen amoon ay match yu nga xam ne jotoon ngeen ko joué ci stade Abdoulaye Wade ngeen gagné woon foofu amoon match retour également ñu gagné leen foofu nan ngeen dundee défaite boobu. waaw métti na trop métti na trop mais aussi football moo demee noonu football 90 minutes la bu nekkee aller retour. deux quatre-vingt-dix minutes la ou quatre-vingt-quinze minutes donc euh, ñun balaa ñu jógee fii aussi gaa mëne woon nañ 3-1 mais xamoon nañu ni du yomb donc euh, bu ñu demee fële métti woon na trop defet bi joué nañu gagné nañu mais aussi euh, on joue le foot pour vivre ce genre de moment ce genre de situation yooyu donc voilà. défaite bi nan la def à part CAN bi waroon ngeen jouer également su fekkoon qualifié ngeen li nga xam ne moo di Jeux olympiques bi mu nekkoon une occasion bu nga xam ne waroon nañ leen permettre au moins si yéen euh, ngeen prouver waat encore wala aussi ngeen gën a frappé ci ci ci bëtu recruteurs yi. waaw comme ni ma ko waxee rek euh, ku ñu seetaan xam ne ñun qualifié moo nekkoon suñu objectif. waaw loolu la ñu bëggoon parce que aussi Jeux olympiques yaakaar naa ne ñu ñu si bëri benn yoon nga koy sa sa carrière donc euh, bokkoon na si loo xam ne ñun moom rek lañ doon gis avant Jeux olympiques euh, bien évidemment am na kan bi donc euh, suñu objectif moo nekkoon qualifié métti woon na trop parce que loolu la ñu bëggoon mais après sant yàlla football moo demee noonu di gën a defaraat. xaar lu ñëw qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a je pense pas <laughs> que mun naa wax loolu parce que voilà équipe moom Euh, football moom nii lay demee. Mhm. des fois day am euh, hécatombe euh, collectif. donc je pense que Malien benn instant gënoon nañu soxla match bi mais aussi ñun football nañu noonu la mujj jeexee donc on a fait ce qu'il fallait donc ça n'a pas marché on a accepté aussi. alors après équipe nationale U23 tu rêves aussi de jouer ci équipe nationale A bi yaa ngi ciy liggéey ci toll. waaw bien sûr je rêve je de d'intégrer là-bas parce que wowoon nañ ma période euh, corona bi mais après su suma club mujj ma woon libéré loolu moo taxoon intégré wu donc euh, fu mu nekk nii bokk ma na ci samay objectif mais aussi pour man avant loolu c'est c'est d'abord de travailler en, en club d'abord intégrer équipe nationale bokk na ci say objectif euh, sa club ren performance yi sa saison nan la demee ren bon waaw euh, am na performance yu baax surtout euh, de fin saison bi dugal na bi def naa def naa performance bu baax après voilà ça. ok nan nga fas yéene envisager tes objectifs euh, réussir nga ko atteindre nga ko wala tu avais fixé plus que ça. bon. Euh, pour man j'avais aw ma woon objectif boo xam ne dam na par exemple mooy dugal quinze buts ou vingt buts euh, donc euh, si lu ma doon concentré mooy chaque match être performant euh, aider l'équipe dugal ay buts e def naa ko même peut-être bu fekkee doyul mais au moins euh, participer naa aussi si si si un peu objectif yu club bi voilà sa intégration Belgique nekkoon na lu metti wala puisque nga jóge Sénégal voyager en tant que jeune nan nga ko doon dundee. waaw début au début métti woon na métti woon na euh, parce que aussi euh, langue yi bokkul man maa woon côté flamand yi donc euh, métti woon na mais après. heureusement que di nga fekk ñoo xam ne dinañ la si jàppale tout et après ça m'a un peu la tâche. il y avait des sénégalais joueurs sénégalais yi nga doon partagé. foofu waaw il y Crépin à mm-hmm. côté donc euh, aussi yomboon na tuuti si man quoi. Mm-hmm. jàppale na ma trop si si côté boobu. ta relation avec les joueurs. Euh, de l'équipe nationale ou bien. avec les joueurs de l'équipe nationale ak ñëpp U23 bon sama relation ak joueurs yi moom c'est jàmm jàmm jàmm moo si am quoi jàmm moo si nekk parce que voilà man moom des fois damay bëgg tuuti ambiance mais bon euh, la veut dire que dama damay bëgg sekk jàmm ak ñëpp quoi donc euh, ñëpp laa sekkal jàmm amoo problème ak kenn voilà. di nga leen di ngeen demalante. waa am na ñoo xam ne dama si demalante. Mhm. waa Euh, récemment euh, CHAN bi équipe euh, Sénégal jël ko équipe nationale U17 aussi gagné trophée de même que équipe nationale U20 performance yooyu nan nga ko gisee. waaw lu lu Sénégal yàgg liggéey la rek parce que boo xoolee depuis depuis très longtemps Sénégal a ngi wër loolu yàgg nañu liggéey si loolu donc aujourd'hui pour moi. fruit yu benn travail boo xam ne yàgg nañ ko muñ yàgg nañ ko def la quoi. Mm-hmm. bëri nañu ay jeunes joueurs yoo xam ne aujourd'hui ils sont conscients et xam nañu lu ñu bëgg te ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi joxewu pour défendre suñu couleur. Mhm. voilà joueur locaux yi également championnat Sénégal nan nga ko gisee comparé foofu ak yéen seen championnat. waaw bon c'est vrai que am na différence am na différence euh, mais aussi boo boo xoolee tey bu bu joueur locaux yi demee ba représenter Afrique jël coupe bi. c'est quoi tes projets. Euh, mes projets, je pense que c'est déjà être performant en club pour euh, aboutir euh, si si si yenn objectif yi aboutir si yenn objectif yi waaw euh, cela veut dire euh, être performant comme ni ma ko waxee en club et beaucoup travailler surtout. Mm je pense que pour l'instant loolu moo nekk sama bopp liggéey pour euh, pour pour percer encore. en dehors du foot lan ngay def. Euh, bon man à part bon, vacances ah, damay ñëw Sénégal sama gars yi laa koy laay nekkal chaque jour ñoom laa yegg nekkal d'ailleurs à chaque fois ma ñëwee vacances génn def match sélection football mbaa ma yeew ma dem entraînement dellu si ñëw euh, voilà wala seeti samay mbokk et tout. lan moo la gën a marqué ci sa carrière professionnelle. Euh, li ma gën a marqué je dirais peut-être euh, peut-être euh, moment euh, passé naa ay moment difficile yi nga xam ne j'avais j'avais vraiment des des des des problèmes comme comme tous les jours qui passent des moments difficiles. Mm-hmm. toog naa ay années yoo xam ne métti woon na trop. mais bon je pense que benn affaire la boo xam ne duma ko fàtte te jàngal na ma lu bëri won na ma ni. pour euh, pour jouer au foot il faut nga am mental bu dëgër donc loolu bokk na si lu gën a marqué yan moment yooyu noonu yan moment la. oui je pense c'est deux ans yi passé donc euh, voilà doon na période boo xam ne métti na trop si man doon na li nga xam ne aussi jàngal na ma trop trop trop trop. qu'est-ce qui s'est passé exactement. bon deux ans la yoo xam ne j'ai pas j'ai pas beaucoup joué. Euh, dem naa ay prêt malgré ça j'ai pas beaucoup joué et voilà j'étais pas j'étais pas à mon top niveau et voilà c'était très dur mais bon doon na loo xam ne du ma ko fàtte te jàngal na ma lu bëri si ci milieu football quoi. Mhm. d'accord à part sa carrière professionnelle sa vie euh, naturelle aussi am na la ci lu la ci marqué wala lu la ci touché également. non je pense pas que peut-être mais. du loo xam ni peut-être damay toog di ko xalaat wala waaw euh, je sais en dehors du foot lan ngay xalaat par par exemple si côté investissement et tout euh, à part le foot tu penses à quoi pour investir ci nekk ci. waaw oh, je pense que maa ngi maa ngi maa ngi xalaat si lu bëri ah noonu laa ko mën a waxee mais je pense que pour man après lu jot yomb nag koi donc pour l'instant maa ngi siy xalaat ñu ngi ma donc euh, pour l'instant doon na loo xam ne munaguma ko wax parce que voilà jotagul quoi bu jotee rek incha allah je parce que ñëpp nañ ko gis. dan moo la gën a neex ci sa àdduna pour le moment li nga jot a dund. football. amour bi nga am ci football. waaw. <laughs> football moom yaatu na di. waaw yaatu mais instant bi mooy loo xam ne mooy sama vie. Mm-hmm. waaw donc euh, tant que maa ngi maa ngi koy def jàmm ak salaam sant yàlla loolu moo ma gën a neex sama du maa ngi fubal si jàmm maa ngi réaliser samay rêve mhm. voilà jamono ji ay club ñu ngi lay courtiser wala amago benn proposition bon je pense que loolu lu ma si maîtriser bëriwul parce que am naa benn tas de personnes bu gérer loolu mooy samay agent mhm. donc euh, je pense que ñoom ñoo ñoom ñoo nekk si yooyu pour man instant lu ma intéressé mooy pour l'instant Charleroi laay dellu et après lu si des ñoom ñu ngi siy liggéey te après peut-être dinañ ma mettre au courant quoi. ban mooy sa club de rêve. Euh, du ma ne am na club de rêve mais sama club boo xam ne moom laa yàgg bëgg mooy Barcelone. Hmm. donc euh, je peut dire aussi club de rêve la mais jouer euh, si haut niveau bi daal bokk na samay rêve. après hmm. au niveau Angleterre les les les plus grands championnats sa joueur nag kan la. Messi. ok. Messi Firmino. ñooy say joueur. waaw ban plat nga bëgg xam naa kaldu nga may wax. non c'est bon <laughs> c'est bon c'est bon. voilà Youssouf sa dernier mot lan la ñu bàyyi la en même temps nga tàggatoo ak waa Seneweb. bon di leen wax merci si euh, interview bu ngeen bu ngeen ñëw defe ji aussi site la boo xam ne wax dëgg ne yàlla man si laay xoolee certaines information yu fiable ak yu voilà. que ça soit sur les réseaux sociaux voilà donc maa ngi di jaajëfal maa ngi di sant di leen gërëm di sant aussi ñu may seetaan di leen wax ni que seetaan leen seen web. te mm-hmm. du ngeen ko rëccu te di ngeen gis li ngeen xam ne c'est fiable et c'est concret. voilà euh, merci beaucoup euh, ñu leen di jaajëfal yéen mbokku internet euh, Seneweb TV seneweb.com tey nag ñu amaloon waxtaan ak ki nga xam ne moo di l' international bat Badji jot nañu développé ay sujets yu bëri di ngeen ko jot ngeen ko déglu ci waxtaan bi di jaajëfal également ki nga xam ne moom moo nekkoon ci cadreur bi ci cadrage bi ki tax ñi rafet di Papa Lay Seck ak ki nga xam ne moo di Doudou di leen jaajëfal yéen ñu ne ñi seetaan di leen jox dig daje ci beneen émission incha allah jërë ngeen jëf.